yow fa ngay xool démb ca pale ba ci teewaayu njiit réew Macky ci la Moustapha Niass waxee kan la tànn mu nekk seen mbër 2024 waaye la tax nag njiit réew mi tànn Amadou Ba Moustapha Niass fa wax ne xarañteef njàmbaar jaar-jaar bu mucc ayib moo tax ñu tànn ko la Soleil yéen a kaay dëggal ko 24 heures ne Amadou Ba mooy mbëru Benno Bokk Yaakaar ci jongante njiitum réew yi war a am février 2024 Le Peuple yéen ne Amadou Ba kay moo nar a nekk président Sénégal bii moo takk barasa capitaine waa benn bokk yaakaar maanaam moo jiite fi mu toll nii Pape Modou Fall ne ñun waa benn fa ñoo soxla woon candidat boo xam ne fay xam état te Amadou Ba xam na état kon man d'accord naa ci Abdoulaye Seydou Sow ministre dëkk ca Kaffrine ne ma ne tamit d'accord naa te tànn gi ñu tànn Amadou Ba démocratie dëgg la Mamour Diallo ONAS nee na man tamit d'accord naa ci Amadou Ba bi ñu tànn ña ngi ko waxee ca li yéene kaay GP yéene kaay na ko yokkal ministre bi ñuy wax Mamadou Talla moom i rafetlu na tànnee fa Amadou Ba gi Abdoulaye Diouf Sarr moom nee naa ci ba na responsable yi ñëw nekk ci gannaaw Amadou Ba Robert Bourgi nee na image Amadou Ba fa lool mu ngi ko waxee ca Dakar Times la mu wax nag moom Amadou Ba bi ko njiitiram Macky Sall tànnee ba léegi kàddu yi mu njëkk yëkkati nee na fa fas yéene wéyal PSE bi nga xam ne njiitiram Macky Sall moo ko fi andi ginnaaw bu mu ko gërëmee ci li mu ko tànn xëlbatiko xoo naataangoom yi ngir ñëw jàppale ko Mansour Faye goro njiitiram Macky Sall na ko man da Amadou Ba mii njiiti réew mi fa koo xàllal yoon sens bi mu nar a am waaye gàllankoor yi nekk ci kanamam tamit lu jar a xel la moom Amadou Ba nag duy wax lu bëri ndax technocrate la njiiti réew Macky Sall nag la ko waroon def na ko mooy tànn su di quotidien na ko voilà waaye gis nga bi mu tànnee ba pare nag ci la Aly Ngouille Ndiaye tekki ndombol tànkam ci jëwriñ ji ñu tànn gi Ba man faa ci d'accordut yéene kaay bi ne maam booy jaawa tamit fa xaw yoonu bàyyi wan gannaaw njiiti réew a Aly Ngouille Ndiaye moom wane na ak njàmbaaram wane ful fayda ne d'accordul ci Amadou Ba te xalaatu nekk ci ginnaawam exclusif yéen kaay mel ku naan ko moo yey gis ngeen Amadou Ba bi ñu tànn tànn bi baaxut moo tax Aly Ngouille démissionné Abdoulaye Daouda Diallo moom fa ñoo dégg ne fa bëgg a parti boppam ndax moom it àndu ci Amadou Ba te parti ba APR authentique la ko nar a tuddee turbine yéen kaay moo ñu ko wax ndax yéen kaay bi fa jàpp ne njiitëra Macky ñu fa dangereux fa garaaw ndax fa nar a ñëw rek wéyal li fi njiit réew Macky nekkee woon Ibrahima Bakhoum di ab journaliste nee na Ba xam nga lan moo nar a nekk problème bu njëkk mooy ay adversaire am dëgg-dëgg biir APR ca boppam fa bëri ay responsable yoo xam ne gëmuñ Amadou Ba ndax fa ñoo wax ne du authentique maanaam bi mu ñëwee APR yàggut Khadija Mahécor Diouf maire Golf Sud ne moom Amadou Ba nag am na liggéey de ndax Sonko lay <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne tànn gi njiitaram Macky Sall tànn Amadou Ba fa baax lool ci gis-gisu ñenn ñi bés bi yéen a kaay ñu ko xamal donte nag Amadou Mame Diop ak Diouf Sarr ña nga ca gannaaw Amadou Ba d'accord nañ terewul Mame Boye Diao fa fippu Abdoulaye Daouda Diallo fa na tekk noppi waxagut bun Abdoulaye Dione njiitaram Macky Sall fa koy dalal lépp ngir defal ko wal fa jir yéen a kaay ne Benno Bokk Yaakaar kay jamono ji ña nga ca gannaaw Amadou Ba moom Ba nag maanaam am na fu mu baax le waaye am na foo xam moom Benno moom yëngu na nii Amadou Ba débat public journaliste yi toog ñu wax su ngeen xam ne du waaja de Robert Bourgi na ko faa koy digal moom Amadou Ba mu sukkandiku rek ci bilan njiitëram Macky Sall su boobaa fay xam ndam direct news na ko faay dëggal li nga wax Amadou Ba mi ñu tànn tànn bu baax la ndax mooy tax bennoo fay xam ndam critique yéene kaay na leen hé faa bëgg ngeen def ndànk de fa nga ne teel bàkku te làmb ñëwagut gars yi sëgguñ bëree te fi mu nii li dese Amadou lu tax sénégalais yi gëm ko fa bëreetut am temps bi ci war ngir mën a waajal combat bi les si ko yéene kaay ne jabaru Amadou Badji nag démb lañ ko doo di gis mu génn di wax di rafetlu tànn giñ tànn borom këram moom nag mu nga tudd Booli Ba man ma ba kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom turbine yéene kaay moo juróom-ñaar téeméer ci ay ndaw duggati ci gaal gi ngir dem Espagne ci diir bu gàtt 24 heures yéene kaay fa ñoo xamal ne suuf sa nga xam ne fa yëngatu ca réew Maroc lu ëpp ñaari junne doomu aadama fañ caa faatu ndeysaan muy lu métti lu dal réew Maroc turbine yéen kaay na ko ëpp na ñaari junne kay te am na tamit benn sénégalais boo xam ne bokk na ca ña faatu ñu ëpp ñaari junne tamit am nañ ci ay gaañu-gaañu l'observateur moom fañoo ñoo xamal ne fii Sénégal diiwaan ba ñu wax Tambacounda fañ fa doon amal kankuran waaye benn kankuran ba daal fañ koo jàpp dóor ko ba mu faatu ñàkk ba kanam allah ka ñu jàpp na moo rey kankuran ba seen kër gars yi fañ koo song attaqué leen tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na benn xale bu góor daal fa xam gel ñuy génn maanaam coro kum bëgganteeg ñu dem ba mu yàgg xale bu jigéen ba ne ko man daal fa bëgg ñu dakkal bëggatuma la faa bëgg ñu baxante nga dem ma dem waaye xale bu góor ba xam nga nu mu defam fa rocci paaka bojj ko ko ba mu faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca kër mbay faal turbine yéene kaay moo ñu ko xamal xale bu góor bi nag nee na li tax mu def ko nee na fa bëgg xale bu jigéen bi ba ëpp te mënta seetaan mu koy bàyyi waa ma ne def nga erreur de xale yi jigéen yee ka bari te ku gën a rafet sa moroom rek nga ne këla la fañ doon génn kay bëggatuma la nañ bàyyante gërëm ko sant ko affaire bi rafet yow nga dem seeti keneen ndax ku lamb yaa tey fa ngay daagu fañ la nobee léegi yow fi mu toll nii fa ngay perte dix perte la sec tëj nañ la kaso waxuma la jabar waaye gel sax yaakaar naa dootu ko xamati de a ah, ban xale bu jigéen mooy dof di génn ak yow ëllëg su la bàyyee fa nga koy rey